kon maa lay fay di la siyaar di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur sant suma famille bu baax a baax a baax a baax di nuyu suma sëriñ sëriñ Cheikh bintu fal di nuyu suma waa dëkk aussi di nuyu waa Géejawaay yëpp di nuyu aussi tamit ñi ma fekk si fii waa Massa bu bees suma frère yi ma fekk si ay njaga gaay yi xam nga di seen Matar xam nga ak grand moom place bi grandière ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di nuyu waa waa waa masa bés bi yëpp may nuyu waa Géejawaay bu baax a baax di nuyu waa Jurbel aussi nga xamante ni awma lu ko sut di nuyu suma famille yëpp yëpp di nuyu suma mbokk géwél yi aussi di wax ne welcome dal leen ak jàmm ñu wéel ci wi ci kanam euh, dafa mel ni bi nga jógee sa combat yaa ak Bou dafa mel ni corona bi la non corona gis nga ko mu dal man naa woon sax gars yi dañ ma dañ ma fi dañ ma fi dañ ma rek dañ ma kaani <laughs> loon rek. non damaa gis état fi mu toll nii mbër ndaw yi ma gis yëpp. ñëpp bàyyi nañ ñi jeexal nañu ñi ñi nga xam te ne rës nañ koo jox mën a taluma entraîné mais état dafa am bi mu la gisee lan la. non dañuy maintien rek bañ xam nga li ñu yor dem xam nga moo tax may ànd ak suma frère yi di dem Sall suma rak yi ay booy bébé guy gi xam nga euh, alkaana mooy ji càndum 2 xam nga maa ñoom tout le temps ñi ngi Sall di entraîné ñi ngi géej aussi. xam nga di joob xam nga pour bañ a perte suñu forme parce que xamuñu kañ lañuy jékki-jékki ñu ne ma affaire bi tijji na bu boobaa xam na da nekk fii di waaye di te li li lamb gars yi di wax naan lamb du du biir day xëy wasin kon amuñu jot boobu di di xaar xaar bu métti bi bon kon dañuy xam nga di ñàkk suñu bopp quoi pour pour bañ yaram bi bañ a bàyyeeku carrément. gannaaw ñu ci bëri xam nañu Eumeu Sène junior mais euh, ñu ci bëri dañ naan Eumeu Sène dafa xaw a tardé ndax Eumeu Sène bi mu déclenché boobaak léegi ñu dégg Eumeu Sène junior di ko gis mais gisuñ ko mu yegg benn niveau bi lan la waaw lépp xam nga des fois day aju ci wërsëg ak ak ndogalu yàlla parce que man tey jii sama carrière su ma nee xam nga man ak amaa bale la waroon doon wala man ak Boy Niang parce que ñoo bëree ndoo woon xam nga mais suñu borom dogal na liñ am mérité nañ ko li ma am mérité naa ko parce yàlla suñu borom mooy dogal ñu yàlla lu tax yàlla suñu borom yeggale leen fi bàyyi ma fi defalu ma yàlla suñ borom xañ ma yóbbu leen lépp ci ndogalu yàlla te dañ koy sante yàlla. xam nga di ñaan yàlla suñu borom ñoom li ñu am ñu am de plus wala ñu am lu ko ëpp ci barki Serigne Fall parce que xam nga ñun ay ay Baye lañ te ay jaam yu nangu dogal lañ lépp lu mun ti ñëw rek xam nga dañuy gëm yàlla te xam ni ndogal la ndogal moo ñu téye fii ak fracture damu damu moo moo xaw a taral suma carrière mais lépp sant yàlla la rek waaw. mais lan la adversaire yi nga war a bëreel ñoom nga amagul wala yaadul jël ñi nga xam te ñoom nga war a bëreel wala maanaam dama comprendre man parce que boo nee man ak ñoom Boy Niang su ma nee man ak ñoom Ama Baldé te fi mu toll nii euh, ñi topp ci ñoom sax xawaguloo yegg foofu parce que su ma juumul kal mu du nga jël lan la. waaw ñi topp ci ñoom igir booñaa boo xoolee awma ku ma fay bëreel burul Boy Niang Boy Niang moo ma fa xaw a raw kalmanduur bi ma koy jël maa ko raw et puis foofu lan dinañ ci ñëw parce que yaakaaroo ba pare nga jël ko dinañ ci ñëw mais lan mooy problème mu lan mooy problème mu Eumeu Sène junior. loolu laay wax mais problème Eumeu Sène junior mooy que ku amul li la gënal da ngay jàpp ci fi sës bëggoon naa man di bëre di bëre ñoo xamante ni man sama làmb mosuma def nii ci kawa ah. def nii ci kaw jël parce que du ko am. lam mooy su ma métier tamit du ma fa nekk di xaar demali suba su ma dee def nii aw ma ñi ma war a bëreel nanguñ ma jël tëkku naa fi Yékini junior tëkku naa fi ku ne nag ku ne moo ku ne ku tëkku naa ko xam nga affaire yi ñëwul quoi mais du toog di xaar ko nga xamante ni bëggul bëri ak man làmb mooy suma métier ñi bëgg bëri ak man damay bëri ak ñoom. mais lan la da nga amul yu mbëri am parce que mbëri ñu ci bëri dañuy am promoteur ñi am staff bu baax parce que di nga ci xam day bëri benn combat ñaari combat am grand combat wala am koo xamante ni moo ko raw ci làmb fuuf. combat bi passé ki ko doon tëgg man ak moom romb na affaire promoteur Khadim Samb. kon bu fekkoon affaire promoteur la man dama naan affaire wërsëg la ak affaire ndogalu yàlla bu fekkoon affaire promoteur la Xaadim Samb mën na ma jox kon buy li ne ci xolam mooy ko mu jox ma modloo ma bëri moom wala keneen ak keneen xam nga mais tey jii Boursin la ma yàlla boole loon bëri nañ ma moom daan naa ko xalma nduur laa dëgmal te incha allah bu soobee yàlla noonu lay demee waat bu soobee gis dama gis bu ñu weesoo loolu euh, nekkoon nga fan euh, kii taasu nga mhm. nekkoon nga bul faale waaw après nga léegi yaa ngi kii moo fadam tournoi boobu pour lan la woon. avant tout Morfaram la woon Morfaram laa njëkkee. Morfaram nga njëkkee waaw après su may grand frère góor gi ñoo ma yóbbu woon bul faale parce ay xarit lañu woon ak Tyson Eumeu Sène bon man nit laa bu nga xamante ni damaa nangu ko ma yëlif ma ànd ñoom ñu yóbbu ma bul faale ma dem nekk fa. xam nga ba ma seen di quitté bul faale ma ànd ak moom aussi tamit waaw lépp tamit nekkoon ci lu nga xamante ni. lan moo taxoon nga quitté bul lan moo taxoon quitté bul faale parce que ma seen moom fa yóbbuwoon moom moo taxoon ma ñëw bul faale bon buy génn ma fa toog. maanaam ak moom léegi bi ma demee nag ba nekk suma yëfu bopp ba nekk suma magu bopp en fait maa woon xam ni produit yu Morphodam la man produit yu Morphodam la ma delluwaat ci keppaar Morphodam ma ñëwaatee tamit muy nuyu waa écrit bi de passage di nuyu président bi xam nga di ñaanal papa Mor Fadam. moo taxoon nga jóge woon foofu da nga fa gisul woon sa bopp wala. lan moo tax ma. nga jógee fa gisul woon sa bopp même pas déggoo ma la. ñoom bi moo juumul bu ñuy doog a dem ah euh, Taï Shinga bay woon na coow mbër yaa ngi génn ku ci nekk di bëgg a wane sa bopp. Taï Shinga bi ñuy soog a dem man maa fa nekkoon. comme espoir Tyson 2 man ak Tyson ñoo fa nekkoon ak Jordan safur la à part euh, loolu Eumeu Sène moo fa nekkaatoon amatutoon amul raag bu metti ba fa nekk ci ay mbër li gën a jafe mooy am naa ko mooy génn mooy am tur fu ma génn ñu ne Eumeu Sène Junior mi ngi ne. ci ci tâche mais nekkul li nga nduróo ak Eumeu moo tax boo génne ñun Eumeu si Junior ngi ne tamit di dem. non Eumeu Sène nduróo wuñ sax. Ah, non <laughs> bi génn léegi ñu naan est-ce que du Eumeu Sène nekk <laughs> non non maa moom Eumeu maa ngi ko nuyu de passage tuddee naa ko jàmm boobu mais du question kay affaire de nduróo mënoon naa ñu bari nañu niroog Eumeu Sène te te te te làmb jox leen seen. cër man gisuma ko ci laa ko gis. boo gisoon Eumeu Sène bu yëmbal da ngay bàyyi àdduna. non da ngay bàyyi àdduna billaay wallaay. kooku moog Eumeu Sène benn lañ teg teg billaay wallaay maa ngi koy nuyu moom tamit mais man damay ñëw ci làmb amaa wane sama bopp ci làmb damay xeex damay bëree xam nga xëñ na nag xaalis bi ñëwagul mais li mbëri di am ci làmb am nañ ko mooy victoire ak défaite waaw ak supporter. ak ñu la bëgg am nañ ko mais suñu borom moo dogalagul xaalis bi ñëwagul oto yi ñëwagul kër gi ñëwagul lépp ndogalu yàlla la. léegi nga jógee foofu jël sa combat yaag Bou Sine mu nekkoon combat xamante ni bu métti woon na yàgg Bou Sine ngay ñëw ba ci bés bi euh, grand combat bi yàqu sas bi gënoon diis. parce que dañ naan ba journée bi yàqu na gaa yëpp loolu la ñu waxoon journée bi yàqu na seen ba sax fàtte woon mais ngeen ñëw euh, wane loo xamante ni nii grand combat bi amul sax nit ñi fàtte na grand combat ndax seen combat bu metti yàgg lan la woon jour boobu. non ñun ñoo nekkoon grand combat bi. ñoo bi. ñoo nekkoon grand combat bi. Alioune Seye ak ñaq jor ñu ñu doon bëre beneen grand combat bi Alioune Seye 2 suma ñun ñoo nekkoon grand combat mais pas ñoom Alioune Seye ñoom Alioune Seye 2 ñoo doon bu gisoo ñoo dugg ci géew bi di waaj a ñu gaañ Alioune Seye 2. spécial bi bokk. ok voilà ñun ñoo waroon bëre grand combat bi mais après bi bee amul man de nature samay combat noonu lay am. mojum kaañ lay doon da ngay bojj di toxoñu mbaa ngay bojj say baqara yi génn mooy combat moom rëf tëf tëf tëf dóor xeex bëre yàlla nag moo yor ndam. dama doon fi ñëw indi leen problème gars yi leen dama jox xaalis par force loolu laa ko jógee. ma xam ah Modou Sène mooy moom xaaral Ndiaye moom nekkul fi <laughs> ah Sopé. waaw lépp jaam waaw mais man la fa demee. waaw mais tombé war a ay gaaf mais kii moom xam nga. paa moom dafa yàgg quoi depuis Mbapat depuis Mbapat. depuis Mbapat mais xam nga moom moom Dóor waar rek la xam quoi. waaw waay waay taag amal jàmm bu baax yow. waaw mais sama gars. baaxee boo ñëwee de. ñaanal combat bi di ñëw yàlla suñu borom dafa nekk rek. da koy daan sax. incha allah amiin da koy daan gëm nañu da koy daan. boo ci kaw ci kanam rek. da koy ñaanal yàlla lu wane dara lañ koy ñaanal. amiin amiin. mais kontaan naa ko. waaw mais rafet waaw Ahmed Diagne dégg nga incha allah. mais saa ci kër gi la de. waaw mais jërë nga tey kay kay xam nga ni ñu nag moom mooy loolu. waaw sama doomu bàjjen la moom bokk na sama lépp maa war a jox mais tey moom loolu du yàq dara tey sama lépp la ba démb démb rek laa koy wax maanaam saa laa fekk fa lay mu jaay mu jox ma xaalis bari te loolu bu ko neexoon bañ ko cee fekk waaw comme bu ma fekk mu jox ma xaalis barke yoon bi tey mu mel jàmm ak xaalis laa koy jeexal wasaare lamba lépp su amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw damay nuyu sama jabar di nuyu sama jabar di nuyu sama njaboot yëpp yëpp yëpp yëpp di leen nuyu aussi di leen masaw di nuyu ñu ma fi fekk ma leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu sama mbokk géwél yëpp yëpp yëpp bàyyi ma kenn. mooy nuyu sama jigéen sama xarit soxna May Fall di nuyu Serigne Sidi Diop borom këram soxna Karima Mbacke maa ngi ko siyaar aussi di nuyu waa Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu aussi Xarim Anta Seck waaw ndax moom sama gain la quoi moom borom baax la gainu ñëpp la sax quoi gainu ñëpp la mais gis naa ne yéen ñaar sax ngeen daw jargandalu de nu demee noonu. non bëri ngeen lu doy waar da nga. gis ngeen la woon daw na sonk nga bale ko ca suuf noo bu ko néewoon loolu bu sul ñëw. jaana tàkk <laughs> gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb Eumeu Sène Junior lañ fa dalaloon euh, gannaaw ni ma leen koy waxee chaque jour làmb amul dara amul waaye ñii nga xamante ne ñooñu seetaan dénkuñu seen bopp mënuñoo toog croiser les bras ba tax ne fépp fu mbër nekk fépp foo xamante ne làmb dafay nekk rek dañuy dem seeti leen ay mbëri xool leen nu ñuy toogee gannaaw làmb amul Covid na fi nekk ni lañ koy defee maa ngi nuyu sama cameraman bu baax a baax di ko nuyu moom Eumeu Sène Junior di nuyu Xaadim Seck di nuyu ñëpp ñu fi teew di leen jox dig daje ba beneen incha allah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 wala bi ñu ko liggéeyee